Mandiang jaajëfal nañ la bu baax a baax euh, vraiment c'est toujours un plaisir ñu lay dalal ci plateau bi ñu bàyyi la nga tàggatoo mbokk yi waaw maa ngi <laughs> no <laughs> tey soo booy bi tey dama ko taf ci mur bi tey. parce que xam ñu koy gis muy jënd glace ah tey moom tey moom tey moom vraiment ah. waaw fa wax dëgg yàlla c'est mais Babacar Ndiaye da nga koy wax na nga ne ko Tandian c'est un ancien président de fédération de basket da koy respecté. Hmm. Ah, mais moom pourtant man mosuma man mosuma dégg. man tamit man mosuma dégg fu mu fu mu wax. mais yow soo koy song saa su ne nga koy mais du wax du wax mais du wax <laughs> mais day jëf. waa da ci suuf lay def. Babacar Babacar mii kër la du wax. waa ñu tàggatoo. mais mais mais ay ay tuuxu duna yi muy def mais ci terrain bi la koy defee ak ci ci ci ci ci tribune bi foofu. <laughs> merci euh, beaucoup man su ma ñëwee su foofu j'ai j'ai quand même j'ai besoin d'être respecté parce que quand même je suis un ancien président bu ñëwee doo jël sa nga dem jël sa dem sànni ma fële su ruq ma fële moo tax ba sa terrain bi dootuma fa demati. merci beaucoup waaw maa ngi nuyu ñëpp. waaw vraiment di di nuyu plateau bi. moi je suis content d'être là même si fekkee <laughs> fajal ngeen ma yee <laughs> ah bon voilà di nuyu sumay mbokk. te je reviendrai toujours sur la modalité di nuyu sama soxna di nuyu samay waa kër di nuyu samay voilà